la am foofu te grand yooyu wuute wuute ak la nga xam ne moo am fële ca Ouest Foire ndax kat quartier ba fi mu nekk kenn xàmmeetu ko askano nag naqar ak tiis moo gën a fës seen xarkanam yi ndax kat benn soxla mënuñ ko xëy dox yi Coro Ndiaye ak Libaas Ndiir ñoo fa demoon nemmeeku ji leen. foo toll ci ndakaaru ndox mi rekk ngay seen taw bi ñu mujjee gis tey ci ndakaaru ji changé na xarkanamu koñ bi du Ouest Foire boobu le koñ nag fi mu toll nii mi ngi ci ndox mi. ñu nemmeeku fa sax ay oto yoo xamante ne genn wàll gi yëpp ndox mi muur na ko ca xar kanamu ña fa dëkk nag ñuy gis njàqare ak tiis. jafe-jafe yu metti la ñuy dund fi mu ne nii man suma kër a ngi nele man ci kaw laa ne mais damay compatir ñi nga xam ne seen kër dafa ne ci ndox mi parce que il se trouve que fii bi ñu defee une association du quartier pour le bien-être du quartier man maa président bi donc li ñu mën fi mu ne nii. essayé nañu woo pompier pour ñu ñëw dimbale ñu pour évacuer nit ñi nekk ci biir ndox yi fii mais mënuñu leen jot léeg-léeg li ñu mën a def mooy dire aux gens interdire nit ñi rek ñu dugg ci biir ndox mi. inondation yooyu laal koñ bi du Ouest Foire sax tax na ba problème mu assainissement bi nga xam ne moo sonal ko ñu bëri ci ndakaaru daal di jogaat ba ñu yeewoo ba naga ni kenn ndekkiwu fi kenn añuñu fi ñu sax ay añ ndax cité bi depuis 2005 la am inondation bu mel nii. boobu ba tey amuñu ci benn moyen amuñu ci ndimbal amuñu ci dara parce que dañ ko dañu daggee cité bi noo xam ne ñii dañu nekk ci suuf ñii nekk ci kaw ñi nekk ci suuf nag ñoom ñooy yàqule toujours. fi ñu toll nii nag li nit ñi ñàkk ci matériel la mënaguñ koo xayma. loolu la wokk Ouest Foire nag moo xuri yeneen koñ fii ci Ndakaaru ndox mu bëri moom ñu nemmeeku ci Ouest Foire tey sax moo tax ba muru hôpital bii di Philippe Maguilène Senghor bu Yoff daal di daanu.